bàyyi ko yéenekaay bi mu ne examen de la motion de censure déposée par Abdou Mbow su année la plénière attendue au plus tard ajuma la koy xaar eh Abdou Mbow ki est-il hmm. mooy yéen Abdou waa Abdou mii waa waa yéen dama ne waa Abdou yéen Abdou amul lu koy freiné ci réew mi waa Abdou Mbow daal di ngeen koy bàyyi Abdou mii rek ni ngeen koy bàyyi man bu ngeen paree mën naa leen wax solution Abdou lan la Nabakoor aw ma ci problème ndax Abdou da ngay dem seeti a njool ci réew solution laay jox nii président Diomaye déglu ma bu may wax dee may déglu premier ministre Ousmane Sonko déglu ma bu may wax dee may déglu Amadou Mame Diop ma woo ko wala maas. kan noonu Amadou Mame Diop. ah waaw foog moom ci ci la. Amadou Mame Diop déglu ma bu may wax dee may déglu ku nekk président commission kii waa Pastef ku leen jiite. non maa ngi sàmm si yow quoi. dimbali ma ngir yàlla damay woote nii assemblée damay woote nii. solution laa leen di jox Cheikh Bara Dolly. Cheikh Bara Dolly. déglu ma benn solution ngay wut Pape Ousmane benn la. Mhm. jaru wër. mooy ban maas benn la. nee di dem seeti ki gën a ñool te gën a tal ci réew mi problème amul day fekk Abdou fu mu nekk danaa ko coppee dugal ci oto. jagat jagat bu seen village maam fu dëkk <laughs> ñu teg ko fa tëj village ñibbi si Dakar problème amul. oui oui problème amul. mais jaru ko. <laughs> concentré woo rek ma concentré wu ndax saa yoo xoolee ma yaakaar ne ndawal yegsi yaa ngi dégg la plénière attendue au plus tard àjjuma. Abdou Mbow mii fexe leen ah Abdou Mbow sonal na leen. Euh, ah le son baaxul. waa Thiam ñëwal. Euh, daf may jat daf may jat maas la tout ça c'est maas. dama amul maas mbuub euh, bal ñu micro mami la ñuy defar vite fait. mais mais concernant ab Mbow mi mu wax nii. Mhm. Euh, conseil bi mu joxe. non xam nga Abdou Mbow Abdou Mbow moom franchement parler li ñu def nii moo ñoom dañoo xaru dugg si dugg ci nekk taal sa bopp la. bul ci dugg. tey bokk ci sujet yi parce que moom ngeen nar a waxtaanee. xam nga moo tax moo tax lii nii. Mhm. vraiment. Euh, maas da ngay da ngay comprendre est-ce que les sénégalais ci boppam. parce que Diomaye dafa am benn benn affaire ndëgg sërëx bu mu teg. d'accord euh, mami. da ngeen di ba ñu ci ci ci jàngat bi waaye. Mass lu xaw a doy waar la. Mass micro mami. Euh, baax na elle la. très bien gars yi ñu ngi may dégg bu baax. Mhm. kon baax na kon maa ngi woon ci examen wu motion de censure bi nga xam ne Abdou Mbow moo ko déposé. plénière bi ñu ngi koy xaar au plus tard vendredi mu ne euh, du am commission technique conférence de présidents chargée euh, de fixer donc la date mbiru défaite précoce à la CAN système 3 5 match contre le Burkina Faso ak Burundi ay projets sociaux Kalidou Koulibaly moom la yéenekaay bi jox kàddu yu bëri nag euh, wax na ko ci bu ngeen ko bëggee na ngeen ko euh, liir ci biir yéenekaay bii di source a sortie de Cheikh Oumar Diagne bu gën ngay dan ah da nga man buggaan xaw ma kañ ngay kontaan Libération mu ne bras de fer devant le tribunal après un redressement Auchan dans les filets du fisc le tribunal dafa demander une expertise confiée au cabinet FIDEX SDA euh, avant muy euh, tranché et puis dossier bu exclusif bi on parle de l'affaire des marchés de l'ONAS Euh, section de recherche moom moo dugg en action fu mu nekk nii ngeen yëgee ko noonu mu ne parquet bi itam lii nga xamante ne jot na koo laaj gendarme yi mhm. mi ngi ci biir yéenekaay bi donc soo ko bëggee euh, yëral li euh, yéenekaay bi di libération ginnaaw gi on y ñu dem ci beneen journal on avance laas ñëw ci Ousmane Sonko mi premier ministre ci wàllu motion de censure contre le gouvernement mu ne Ousmane Sonko dafa nekk sur siège éjectable waaye baa xam nga ne ale boo gis am na retour Pape Ousmane ba nga nekk xale daan nga dem malaise waaw am na benn fauteuil boo xam ne boo toogee dalay lay procéder nga naaw waaye deel xaar retour bi tout à buy ñëw retour buy ñëw day ànd ak puissance day ànd ak doole te borom doole xamul ndànk te kaay ma wax la non seulement yow boo nekkee borom bi doole nekk xaritu borom bi doole bi borom bi doole boobu ni leen lu nekk waat sa xarit yow xanaa kon am nga xarit am nga am nga doole ñaari yoon am nga doole PM bu nu ko teggee am nga doole yi nekk doom day président heure bu ko neexee mën na koo ñambaasaat nga amaat beneen doole bu ëpp doole bi nga amoon ale boo gis am na retour am na retour wallaay ok Bougane dafa mel ni dafa mer nag mer na de mer na mer na Cheikh Omar Diagne dafa mere Cheikh Omar Diagne dafa merati waaw nee na waa merati na moom ci mer la dëkk gaa li muy kontaan sax bëriwul moo tax ba koy bëgg wax jël galaas jox sa xol bu na yaa ngi dégg ndë galaas jox gulu gulu gulu gulu gulu koy warkal la yaa ngi dégg nabu koor moom bugaan ñu jënd galaas mu teg ci kaw xolam bi mu sedd guy dañu jëndal galaas mu naan ma ne ko gulu gulu gulu moom yaa ngi dégg beneen bi DPG situation des entreprises de presse emploi des jeunes insécurité suppression HCCT ak CSE la gauche moom mooy dénoncer l'incapacité du gouvernement ba tey ayca ñu avancé dem ci Sud Quotidien mu ñëw ci dépôt de la motion de censure contre le gouvernement majorité bi fu mu nekk nii mooy préparer son coup KO jëla Abdou Abdou ngi mhm. Abdou sama waa boo ñëwee neex wóol ma mbaw mbaw a ngi mbaw mbaw yi rek la nekkee biir assemblée nationale barke Sëriñ Bamba dugalal nañ leen HCCT CSE ne leen supprimer ñu ne ñoo ko ñoo bañ léegi nag dañoo génnee mouvement bu bees mouvement dàqateer ci bitti <laughs> moom la ñu taxawal ni mouvement cab bitti waaw neen nañ koo daal bëgg baara yëgoo yaa ngi dégg gestion des laboratoires médicaux un secteur boo xamante ne dafa bëri ay mots yu ci nekk mot MAUX ginnaaw gi on y va ñu avancé ci beneen yéene kaay ginnaaw Sud Quotidien enquête ñëw ci motion de censure ñoom ñaar ñu ngi nii maas buub ñaar ñii la réew mi di wax ni ñoo àndandoo politique maas ñaar ñii la réew mi wax ni ñoo àndandoo dugg kaso wala kenn ki daal dugg keneen ki fekk si ko ñoom ñaar nii la réew mi waxandoo ne Pape Ousmane ne ñoom ñooy ñaari doomi Penda Naar mhm. fari président de la république ba ko laajee ci Ousmane Sonko mu ne sama xarit la mhm. Ousmane Sonko ba mu waree bàyyi lépp ndax réew mi mënut a dem mu ne kenn laa tànn mu ne juumaay laa tànn ndax lan mu ne mooy suma xarit te moom laa gën a wóolu. soo koy jomaay jomaay sonko. soo koy jomaay jomaay sonko. Mm. ma ne 6 mooy 9 9 ay 6 boo ci walbati mu jox la sa morom. Mm. xoolal danoo méngoo ba méngoo ci couleur ba la yu ñu sol ba xam ne bu bi rek mooy seen différence. regarde le regard de jomaay mais regarde aussi le regard de Ousmane Sonko fecc mbaari mu naan tës tës ñaar ñii. jeu et enjeu lay ñëw nii le rejet du projet de loi la motion de censure annoncée par Benno Bokk Yaakaar lu ngeen nar ngeen ne da bëgg ñëw taxaw ci diggante bi def séparation gars yi ne leen essayer toujours motion de censure ba nag mooy coow li tey actualité bi yëpp ci loolu la ñuy waxtaanee ci situation politique bi Diomaye lan la nar a def bu situation ba yeggee mu ne ay divergence yoo xamante ne noté nañ ko également dans l'opposition waaye mënta politique moo mel noonu ambassade du Sénégal dans les pays de l'AES les gendarmes de poste de sécurité yëpp rappelé nañu leen à Dakar selon euh, enquête Walf Quotidien ñëw ci si dissolution assemblée nationale mu ne lii pari risqué la Pape Demba Sy li mu ci wax nag lenn la mu ne dina am ay conséquence yoo xam ne dina am ci wàllu fonctionnement état bi ala kulli aal beneen bi mooy mu Mounirou Sy mu ne président bi hérité na ay pouvoir assemblée. ba pare mën na gouverner par décret effectivement décret bi mën naa permettre mu limoger ñaari directeur entreprise yooyu nga xamante ne moom mooy HCCT ak CSE waaye même bu leen limoger it lu tere entreprise yi dañuy rester parce que ñoom constitution bee leen fi tuwaar kàlla yaa ngi dégg beneen bi mooy ah waaye man damaa na mooy ci lii may ma tuuti may leen ma ma ñaari rek balaa ma yeggali foog ma laal ci làmb ji may leen ma ko ma làmbaaya nga ca làmbaay biram dumbee nga ca mbul yaa jara tëggal dama ko war na moon ba ñu ko tëjee ba tey jaxle naa barki sëriñ Bamba bu